jéem leen ku jéem yàlla buur bi moom dina la jàppale aduna xëyu rekk jikki daal sotti benn benn ñaar ñaar moo lay yóbbu ñett gañi na jéem gañi na jéem asalaamu aleykum ñu ngi leen di nuyu ñëwaat seen émission jotaay ak borom tawféex tey ñu ñëw ci feebar bi nga xam ne moom la ñuy wax ulcère ñeen di wax ulcère gastrique ñeen di wax ulcère duodénal ñeen di wax ulcère gastro-duodénal ulcère nag baat bi baatu grec la bi ñuy wax ulcus di tekki xotteeku xotteeku wala gaañu gaañu wala góom blessure wala plaie mooy ulcus boo jëlee cosaanu baat bi kon nga déggee ci ne kon bu ñu nee ulcère gastro-duodénal mooy kon góom am na fan ci mbaq mi muy ci gastrique bi wala duodénal wala ci duodénum bi góom boobu nag daa am lu tax nit ki du ko am ci li nga xam ni mooy mbaq mi ndax ku ne xam na ni mbàq doomu aadama dafa am benn liggéey bu am solo boo xam ni moom lañ ko sant maanaam ci misaal mbàq doomu aadama bi nii la bindoo lii mooy mbàq bi mais ci kaw nag am na li nga xam ni fala ñam bi di jaar moom soxlawuñ ko tey muy li ñuy wax oesophage bi olof di ko wax përëx wërëx mbàq mi nag moom sunu borom dafa am liggéey bu mu ko sant muy lan nit ki bu lekkee ñam yi mu lekk moom moo koy jël togg ko jamb ko laatu mu koy jox butit bu sew bu gudd bi ñu ko wax intestin bi muy solom su mag si nga xam dina def diggante juróom-benn mètre ba juróom-ñetti mètre ci biiru doomu aadama bi ndax ku ne xam ne reesal ñam mi ngi amee ci diggante duodénum bi jéjunum bi ak as aslëf ci iléon bi mais mbàq mi moom day waajal rek ñam bi mun koo togg def ko lu ñuy wax chiim nga gis ni kon day soxla yenn acide yoo xam ne day nekk ci biir mbàq mi moo da ngay dégg lu mel ni ñuy wax acide chloridique nga xam ni mbàq mi ci lu ko lal dafa am benn laytaay boo xam ni moo nekk ci mbàq mi lu lal lu ñuy wax muqueuse maanaam boo rayoon gàtt ni ci biir mbaax mi gis lu mel ni ay cupp cupp lu mel ni moket luñ fa lal moom la suñu borom def ci mbàq mi nga xam ne moom mooy protéger li nga xam ni mooy mbàq mi protection moom doo koy tax li koy dimbale mooy acide yi nga xam ni dañuy ñëw ci biir mbàq mi lu mel ni acide chlorique ku ne xam na ni dem na kenkaay ba taay jënd fa acide acide bii ngeen jënd di ko raxasee seen karo yeeg di def yenn yi di ko def ci oto yi acide boobu yaramu doomu aadama da koy defar ci glande yi nga xam ñoo nekk ci muqueuse bi nekk ci mbaq mi muy ay saaj su ma nee saaj rek glande laay wax saaj yooyu ñoom dafa lu ñuy wax acide chlorhydrique ak lu ñuy wax pepsine acide chlorhydrique nag bokk na ci nga xam ne moom mooy waajal li nga xam ne mooy pepsine yi daf ko lu ñuy wax pepsinogène balaa muy nekk pepsine loolu nga xam dafa jëm ci wàllu reesalu yenn xeetu ñam yi mu mel ni protéines yeeg yu ñu demee acide chlorhydrique boobu la ku ne xam ne ne asib day lakkee acide day mën a def góom ku ne xam ne acide mu laa seera ni mu kon même scénario bi mooy ñëw ci mbàq mi suñu borom nag pour bañ loolu am mu waajal mbàq mi defal ko microbes yooyu cuppur cuppur yooyu nga xam ne mooy tax day tax mbàq mi moom du lakk du yàqu mais nag bu fekkee nit ki dafa am li ñuy wax hypersécrétion ci acide chlorhydrique li muy xel ci acide dafa bari bari waaye boobu bu yàggee mën a dem ba endommage maanaam mu yàq li nga xam ni mooy laytaayu muy muqueuse utérine bi nga muqueuse euh, kii bi estomac bi nga xam ni moom mooy indi jafe-jafe bu yàggee suñu borom nag dafa prévoir loolu lépp ba tax mu def ci loolu mais bu fekkee acide bi liñ ci génne dafa bari bu yàggee da koy lakk moo tax mu wëgee da koy indi lu mel ni lu ñuy wax ulcère duodénum bii ngeen di gis lii mooy duodénum mooy fi nga xam ni fa la kii bi tàmbalee maanaam butit bu mag bi bu sew bi muy interségral bi fu muy dajeeg li nga xam ne mooy mbàq mi te nga xam ne cër bi leen di boole mooy pleur bi mooy li nga xam ne cër bi nga xam moo leen boole ñaar takk fii duodénum bi nag moom sunu borom li mu defal li nga xam ne mooy mbàq mi muy muqueuse boobu mu koy lal moom lalu ko fa kon moom da ko bàyyi noonu rek waaye nag bi mu ko bàyyee noonu am na ay pexe yu mu def ba nga xam ni moom duodénam bi bu fekkee lépp mu ngi jaar yoon du am xotteeku xotteeku boobu muy góom boobu wala ulcère boobu ndax da ngay gis ni mbàq mi day génn li ñoo xam ne moom la ñuy wax sécrétine maanaam ci butit bi ci diggante duodénam bi ak jéjunum bi fa la ñuy defee benn ndox boo xam ni benn xalit la boo xam moom la ñuy wax sécrétine sécrétine boobu bu ko yaram bi defaree da kay daal dem sotti mu jëm ci deret bi bu demee ci deret bi nag ci la ko gàddaam bi gàddaam bi moo nekk côté bii gàddaam moom ci lay capter information bi wan ni weex-weex yi muy acidité bi ñëw na bu ko defee gàddaam bi xel li benn ndox boo xam moom la ñuy wax bicarbonate de sodium xeetu carbonate la lay jël def ko ci ñam bi bu ko defee weex-weexu acide boobu muy pepsine bi yu mel ne acide ak acide chlorhydrique moom lay jël nag moom mu xóoyal ko ak bicarbonate de sodium bi pour lan acidité bi maanaam wexaay bi ak lakk-lakku acide bi mu neutraliser ko ba oyofal ko ba nga xam ni du mën a laal du mën a yàq li nga xam ni duodénam bi tant que nag pexe boobu mi ngi am maanaam sécrétine bi mi ngi sécrété lu doy muy gàddaam bi di yëg ni mi ngi wax wex wextaan bi mi ngi fa ak wex-wex yi ak acide bi muy indi bicarbonate de sodium boobu mu koy xoolee di ko neutraliser di ko oyofalee di ko xormatal li nga xam ne mooy acide bi nit ki mën nay dund du am benn ulcération du am benn góom mais nag bu fekkee ne yenn saa ci loo xam ni lu ne mën na ko def sécrétine bi li muy ñëw doyut ba information bi pancréas bi waroon am ci dimbali li nga xam ni mooy duodénum bi jël bicarbonate de sodium bi mu xoolee ko pour neutraliser acidité bi bu fekkee ne loolu ñëwatul kon acide boobu bu yàggee dafay indil jafe-jafe duodénal bi moo tax ñu bëri ñu am lu ñuy wax ulcère duodénal boobu kon nga jàngee ci ni ulcère li koy joxe lu ci ëpp mooy lan bu fekkente ni li nga xam ne mooy acide bi sécrétion bi dafa bari wala li nga xam ne mooy dimbali butit bi mbàq mi ci li nga xam ne moo koy yombala ba nga xam ni acide boobu du ko mun na tam bu fekkee ne foofu système boobu dafa am défaillance day indi jafe-jafe indi ulcération boobu parfois tamit muqueuse bi ci boppam moom mooy am jafe-jafe maanaam lalkaay bi mooy am jafe ba nga xam ni waxtaan bu ñëwee da koy yàq yooyu yëpp mën na indi nit ki ulcère mais na am na leen loo xam tam mën na indi ulcère ndax am na ñoo xam dañuy am ulcère fekk benn xeetu bak bactérie bactérie ci xeetu microbe bi la bokk moo koy indi bactérie boobu ñu ko wax hélicobacter pylori moom bokk na ci bactéries yi nga xam ni day indi nit ki ulcère ndax moom dafa nekk microbe boo xam ni dafa bëgg lu weex te ko ne xam ne ni mbàq mi dafa weex ndax chim bi nga xam ne maanaam mbàq mi su reesee la su jëlee ñam bi ba jàmb ko ba pare chim boobu dafa weex dafa acide moom kii bi da koo bëgg li nga xam ni mooy euh, bactérie mooy hélicobactérie pylori bi da koo bëgg bu ko defee nag foofu day a nekk milieu boo xam ni day favorable ci moom pour lan mu mun def indi nit ki loolu nag muy hélicobactérie pylori boobu moom day indi li nga xam ni ulcère la yàq li nga xam ni mooy mbàq mi bu ko defee nit am ulcère boo xam ni bactérie bi moom mook ko moom moo ko yóbbee moo tax gis nga acide colique boobu nga xam ni moom day dimbali li nga xam ni mooy reesal ñam bi waaye même microbe bi nga xam ni dafa war a nekk foofu acide bi dafay bokk ci nga xam ne da koy rey dindi leen pour mu bañ a am ay microbe yu jàll jëm ci butit bi mais bu dee nag hélicobacter pylori bi nag moom acide boobu nag mënul ko dara da koo bëgg sax maanaam dafa nekk loo xam sax da koy dimbali moom mu gën a def li nga xam ne moom mooy wàllu ay definam pour indi nit ki ulcère ulcère boobu bëri na ci ñu koy am te ñu bëri nag tuflit moo leen koy dafa nekk loo xam ne ci tuflit tax lay gën di wàllantee moo tax nit naan te am ko ci potu nga ñëwaat naan ci potu bi loolu mën na la ko jox yi ni demee maanaam daal nit ki daal tuflitam bu demee tuflitu keneen nit ki rek mu wanaasu ko wala ci ñamam mu dugg ci rek mën na am infection boobu maanaam microbe bi infecté li nga xam ni mais Helicobacter pylori boobu bu ko defee nit ki am li nga xam ni moom mooy ulcère suñu doon tënk daal ulcère yii mooy yi nga xam ni mooy tax nit ki di am ulcère boobu nga xam ni mën na nekk gastrique mën na nekk gastro-duodénal maanaam lu ci mën a am daal ci mbàq mi ak butit yi muy solom soosu nit ki am na fi jafe-jafe ba am ci góom ulcère nag dafa am ay mandarga yoo xam ni moom la nit ki di gis ci moom xam ni dafa am ulcère maanaam bu fekkee nit ki dafa gis ni saa yu lekkee lu mel ni lu am tomate wala lu mel ni diwtiir wala lu mel ni tigedege mu di ko géexaat kooku ne njort ni am na ulcère wala nga gis ni sart dënn bi fii day jam di metti mu di ko yëg ci gannaaw wala muy topp suufu ween bi di ko metti loxo bi di xaw di nagam tuuti yooyu ay xeetu ulcère la wala bu lekkee du rees biir bi di ne kekk du ànd ak ngelaw ba naan kekk rek mu gis ni moom li mu lekk day jafe mu rees mu am benn genre indigestion loolu tam ay mandarga ulcère la wala sax nga gis koo xam ne day sëqat yenn saaye mu génn lu mel ni tuflit li ñuy wax hémoptysie bi loolu ay mandarga ulcère la wala sax koo xam ni day dem douche gis cabinet bi ànd ak yu ñuul li ñuy wax mélanaa kooku tam en général nàcc naat deret bi nga xam ne dinay am problème yi nga xam ne ulcère dina ko indi mu dem butit bi digérer deret boobu mooy indi melenaa boo xam day xaw a mel ni goudron yooyu màndarga koo gis sa bopp njortal ni am nga ulcère wala sax géeg soo xam ni sàtt dënn bi day mel ni luy dal di tëf-tëfi kooku tamit xeetu ulcère la koo xam ni maanaam ulcère bëri na màndarga yoo xam ne nit bu gis ni moom na jàpp ni noonu la mais yi ci ëpp mooy yi nga xam ni moom lañ lim mooy màndarga nga xam ni ki dana am jafe bëgg ko calmer di jël li nga xam ni moom la ñuy wax meew du ko naan buñ ko naanee mu tane dëgg la meew anti acide la baax na boo ko jëlee dina nëbb ulcère bi mais nag baaxul di jël ndax nu mu nekk anti acide dafay yóbbee li nga xam ni mooy yaram bi mu gën a yokk sécrétion acide yi maanaam acide chlorhydrique bi boo da koy obligé mu gën ko yokk maanaam la fekk ngeen di anti acide bi rek day yóbbu yaram bi moom mu gën a yokk production acide chlorhydrique boobu bu ko defee bu yàggee léegi gis da nga naan naan meew muy tane mais léegi sax boo naanee meew du tane. parce que hypersécrétion boobu nga xam ni acide bi bi nga xam ni yow anti acide bi nga di nga jël muy mai bi mooy dem ba indi facteur boobu donc moo tax gënu ki am ulcère da ngay ba xam cause bi lan la góom la nga faj ko mu wér fexe tam ba nit ki ci traitement bi nga fexe ba jox garab yoo xam dana tax sécrétion acide bi wàññeeku waaye itam mu gën a gaaw a cicatriser nga xam ne mooy góom bi bu dee loo xam ne hélicobactérie E. pylori bi la nga xam ne yeneen façon garab ñoo koy jëndi nga dindi ko mu dañ kon ci loolu mooy li nga xam ni moo lañ indi woon ci wàllu ulcère comme que temps bi dafa ñuy xaj dafa xaw a tënk tuuti moo tax ñuy tënk rek mais bu ci nekk danañ fa rombaat wax ci lu nekk na muy manifesto ak yeneen fànn ci li nga xam ne mooy butut bii di mbàq mi. bu ñëwee nag ci li nga xam ni moo lañu def saasu ne muy li ñuy wax yóbbalu tawféex nga xam ni moom chaque jour dañu koy jox ndax nit ki ci li nga xamante ni moom mooy. na muy dundee dafa am yoo xam ni yaramam moo ko soxla maanaam dafa soxla ay garab pour faju pour wér mais am na yoo xam ni ay soxlay la yoo xam ni doomam da koy am ci biiram soxla yoo xam ni soxlay baatin la yoo xam ni ay ñaan la yoo xam ni sunu borom mi ko dugal ci xuraan yu mel noonu yooyu leen ko jox faral di leen jox di leen ko dimbali ko ñi nga am soxlay ci wàllu boobu ñu mën ko di jëfandikoo. mooy lan képp koo xam ne jàpp nga ne ba tey parce que nit ñi dëkk bi defante bi dafa ëpp nit ki boo deful ñi ngi lay def boo defee ñi ngi lay def kon nga aar sa bopp ba kenn du la mën def tam da ciy am solo maanaam képp koo xam ni da ngaa bëgg jàpp ni dañ naa def ci yow liggéey wala nga bañ liggéey jàpp la dañ lay da ngay jël rek maanaam ayatu kursi yi mi ngi nekk suratu Baqara aaya 255 nga bind ko juróom-ñaari yoon rek nga koy bind lu simple la ku ne mën na ko defal boppam boo ko bindee juróom-ñaari yoon nga wut doomu niimaa yi garabu niimaa yi nga ci 313 doom maanaam li mu jay sun 313 saafara bi nga bindoon ci juróom-ñaari kursu yi nga jàmb ko saafara sangoo ko boo ko sangoo nag doo fomp dangay bàyyi ba mbir mi fend sa kaw waw nga doo ko dem loolu ci kàttun yàlla bu fekkee ci yow amoon na liggéey wala lu ñu la defoon wàllu sëf wala dara loola waroon a gàllankoor loolu dana ko teggi bu fekkee dara nekkul ne dana la aar dimbale ba nga xam ni di nga am protection boo xam ni anti missile la yu bëri dana la mën a bañ dal boo ko defee nag yenn saa boo jékki-jékki yeneen saa toogaat at wala juróom-benn weer nga dàbbaliwaat ko ndax nit ki ni mu xëyee sangu set bu xëyaatee da gis day sanguwaat kon tilim tilim yi ni muy ñëwee kon yooyu noonu lay ñëwee kon te doo ko mun waaj kon di ko faral def ba nga xam ne saa ne dina lay mën di aar di la mën di dina mën di toppatoo loolu moom lañu woon seen yóbbal tawféex di leen jox daje ci beneen waxtaan ci beneen feebar ci beneen anam assalaamu wa rahmatulahi taala wa barakatoo